Bismillahirrahmanirrahim. Gudik guddik tey mooy guddik juróom-benneel ci weeru koor nee na sopp nañu ku julli ci guddik tey ñaari rakaa kon benn sëlmal lay doon rakaa bu ci nekk nga jàng fatiha benn yoon ya ak qul allahu ahad fukki yoon ak yaar nee na boo ci gi sunu borom dina la bindal ci tuyaaba ku mel ni julli nga ca maqaama ibrahima junniy rakaa ca masjidil haram junniy rakaa te dina la bindal ci tuyaaba ku mel ni ku saraxe junniy dërëm leel junniy ñi xiif te sunu boroom dina nangu say ñaan te dina la bindal ci tuyaaba ku mel ni dangaa fekk xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp woor nga jox leen ay ndogu yu doyo doyo doy te booy génn àddina sunu borom dina la bindal tuyaabay ku shahid maanaa ku martir te booy génn àddina itam sunu borom subhanahu wa taala dina ko yombal du ko mettil te itam dina def sa xabru maana sa bàmmeel mu doon ab jardin ca jardin àjjana ya te bu yomal xiyaamee sa kulóoru yaram day mel ni jant bi nga am xet gu neex gu mel ni xetu misk te booy dugg aljanna kenn du la réglé da ngay dugg àjjana bi xayri xisaabin mooy laisser-passer total ngay am te itam booy dugg aljanna di nga ànd ak sunu maam Ibrahim alayhi salaam ak mboolem yonent yëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.